xamoo ne gëm bëgg Sëriñ Tuubaa mooy mbir mi xanaa xamoo ne yaakaar Sëriñ Tuubaa mooy mbir mi xanaa xamoo jaara moo waral lii borom poroxaan ay soxna jaara kenn nga laay Seex Ahmadu Bamba yaakaari jam ñi jumaa ji mag ji rakki Mamor Jaara mami dalak Seex Mbakke gorga jaaroon ma yomba gagganti gannaar jubloo mbaxaar raam dooloo doomi soxna yi tasaaran toli jange sëriñ Bamba yaakaar yi jange yow la nu wooloo ak xarit faam daga xanaa xamoo gëm sëriñ Tuubaa mooy mbir mi oh. xanaa xamoo ne bëgg sëriñ Tuubaa mbir mi xanaa xamoo ne yaakaar sëriñ Tuubaa mbir mi xanaa xamoo ne wóolu sëriñ Tuubaa mooy ay soxna jaara kenn nga yaay Seex Ahmadu Bamba yaakaari jam ñi jumaa ji mag ji rakki Maam Mor Jaara Mbakke góor ga jaaroon yomba gagganti gannaar tubloo mba xar ram dooloo doomi soxna yi ta sooran tooli jonge Bamba yaakaari jam ñi yow la <laughs>